asalaamaaleykum mbokk internet yi yéen ñi faral di déglu li nga di seetaan li nga xamante ni moom mooy vingt 24 point com euh, mën ngeen ñu am via youtube www euh, euh, point thies 24 point com ñu ngi fii nag ci marché central bu Thiès fi nga xamante ni sous préfet bu zone nord xëy na tey ñëw désencombré fi nga xamante ni moom mooy rue bi nga xamante ni ci la ñu nekk fas yéene yëkkati ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw tali bi ak ci trottoir bi dañuy déglu ki nga xamante ni moom mooy sous préfet Abdoul bi di euh, préfet bu zone nord ah, buñ ci jógee nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy commerçant yi ñaxtu nañu. waaw dañu ko euh, dañu commencé tey benn opération de désencombrement parce que dañoo seetlu ne euh, marché bi dafa nekk ci benn situation bu jéggi dayo ndax nit ñi ñi ngi lal ci tali bi ñi ñi ngi lal ci trottoir yi bi jaay nu mu leen neexee te ñu nekk ci benn contexte boo xamante ne xeex mbas mi la. donc loolu moo waral tey ñu xëy daal di mener opération de désencombrement boobu muy suñu première opération nag euh, ñu fas yéene aussi def ko ci yeneen bërëb ci marché bi mais au-delà de ça également ci yeneen bërëb yi nga xamante ne ñi ngi ci euh, fii ci arrondissement bu Thiès Nord. bii bi danañ ko def mais li ma ci mën a wax rek mooy xam nga euh, mënuñoo fu ci nekk ñu teg fa policier ba tax na nag ñun ci suñu wàllu bopp. saa bu ñu constaté que ne nit ñi occupé nañ ko danañu euh, danañu taxaw pour que ñu ñu jëlee leen fa. li may ñaan aussi mooy responsable marché yi ñu wax ñi nga xamante ne ñooy commerçant yi ndax wax fa dëgg yàlla taxaw ci digg tali wala toog installé wu ci digg tali wala ci trottoir di fa jaay loolu defe naa euh, du dëgg du yoon. loolu nag bëggoon naa ñoom ñu waxtaan ak nit ñi euh, sensibiliser leen également à ce niveau. waaw comme ni ma ko waxee lii da Euh, benn pàcc rek ci plan d'action bi nga xamante ne tëral nañ ko bu soobee yàlla bu ñu jógee ci lii fépp foo xamante ne nekk na encombrement nekk na occupation anarchique et illégale bu soobee yàlla danañ ci euh, taxaw pour que nit ñi jóge foofu. maire bi déggoo nañ ci yëg na ko ndaxte moom ci wàllu boppam am na foo xamante ne joxe na fa sommation euh, am na foo xamante ne nag fi ñu naan ci tali moom jarul sax ñuy jox sommation nit ki. tali ak trottoir ndax nekk na domaine wala zone boo xamante ne kenn mënu faa taxaw naan da ngay jaay donc foofu moom jarul sax ñuy jox nit ki sommation. port de masque bi du ñëpp nag am na ñoo xam ne xëy na euh, respecté wuñ ko waaye danañuy continuer sensibilisation bi rek ndax ñoo am na ñoo xamante ne dañ dëgër bopp dañ dëgër bopp waaye loolu ñun du ñu tere continuer di leen sensibiliser di leen ñaax ñuy takk masque yi ndax loolu nag moo ñuy aar moo ñuy muccël ci jàngoo ji. loolu moom si bu leer waaw amul sax weerante jërëjëf. man la Thierno si délégué général marché central bu Kees li nga xamante ne bii lii aussi ñun yëguñu ko woon fen parce que mais léegi laa génn ak sous préfecture maak moom am lu ñu doon waxtaane am am lu ñu doon waxtaanee ci liggéeyu dimanche bi euh, maanaam faay bi ci waroon am dimanche ñu coordonné ko léegi ci laa ko doon wax génne jëm mairie zone nord. nag yëguma ko woon parce que mairie zone nord rek lañ ma woowee ñu ne ma effectivement lii am na fi mais kem nga mbir moo xam dafa am xamoo ko nu mu demee il faut nga toog waxtaan ci kilifa yi nga xam ne war nga ci waxtaan ak ñoom nga xam lan la au juste lan moo ko waral loolu daal laa ci amagum e moo tax mënuñ ci sori di wax parce que lii yaakaar naa bu fekkee déguerpissement day am war nañ ko mën a avertiser wax ñu ko mais kenn avertiser ñu wax ñu ko kon dem ci waxtaan ci ak moom juste lan moo ko waral. ndax li marché bi ni mu xatee occupé nañu. waaw d'accord euh, marché bi na kenn ku ne xam na ne xat na. rek ñàkk marché la. parce que ñàkk toog fooy liggéey pendant dix ans ñu ngi ciy wax suñu sañoon kenn du toog ci trottoir yi doog di liggéey mais nag nit ki boo amul ñàkk pexe pexe ci la. parce que looloo taxal rek ñuy toog ci marché bi di fii toog ci kër yi parce que kër boo fi gis ci marché quartier Escale seeni commerçant yi euh, commerçant yi loué nañu ko def ko marché. mais kër ko aussi euh, marché bu fekkente ni kër la borom bu ko luyee aussi mëntuñu bañ marché parce que kër yi toujours kër amul kër bu nekkul fii euh, defuñu ko cantine luyee ko commerçant yi kon donc cantine buñ ko kër boo ko jëlee luyee ko commerçant yi kon euh, kon yaakaar naa marché lay doon. ba yoon wi yooyu sax la ñuy bañ chaque jour tous les jours ma brigade bi nga xamante moo fi nekkal préfet chaque jour dañuy leen wax ni kem ka ci kaw nii ñàkk fexe am na ci nañu aju ci kaw mais déggu nañ ko bàyyi. loolu tous les jours ñu ngi ci bis yàlla ba tey ji rek ñu ngi ci doon wax ak ñoom li jëm ci wàllu godoro bi nii kenn bu mu ci toog mais nii ci kaw nii nañ leen orienté ñu toog foofu en attendant ñuy am lu ñu gënal parce que suñu sañoon kenn du ñu dàkk ci mbedd yi suñu sañoon aussi dañuy toog su ñuy place ñu ngi fay suñuy droit di toog suñuy place kenn duñu fa jëlee mais lée lii moo am moom vraiment waroon na mën a amee neneen du nii ci sama xalaat bu gàtt mais kem que man yëguma ji dara waxuma ci dara parce que maa biram laa génne dem mairie yàlla dogal na aussi am na dinaa dem waxtaan ceeg ñoom ba xam au juste lan la yàlla mën nañu dimbali ñu trouver solution bi nga xam di gën ci ñëpp loolu daal euh, soxna si euh, loolu aussi xam nañu aussi bu baax télé bi du jaayukaay xam nañu ko bu baax a baax a baax loolu aussi xam nañu ko xam nañu aussi njaboot ji euh, vraiment njabootu kees donc la dañuy daan seen doole rek suñu sañoon dañ aussi dañuy am place yoo am toog di fa liggéey territoire yi nii waxoon nañ ci ba préfet Fodé Fall bi mu fa nekkoon waxtaan ci moom ba préfet bi fi ñëw euh, muy préfet Moussa Diagne dem naa ci moom waxtaan ci ak moom xamal ñu carrément ne si kaw mën a si si toog kem ko amuñu pexe préfet ñu toog si kaw bu ko defee ne télé bi nag moom nañ ko bàyyi définitivement ñu bindoon euh, ñu am kayit yi ñu bindoon ñu jox ñu ko mi ngi ñu garde léegi yow loolu ci la ñuy wéy toujours ci la ñuy veillé même pousse yi ci kaw télé bi sax dañuy poñ pour mu indi lii rek ñu jóge ci télé bi nit ñi mën a dem completement bu ko defee ñëpp ñëpp ba yàlla indi jàmm joo xam ne ni mën na yàlla mën na indi loo xam ne ñëpp mën nañ ci d'accord toog ci liggéey ci parce que wote nañu marché depuis 2017 maire de la ville wote ci Capong wote lu war a toll ci 7 hectares pour marché poisson et lajum biti boobu depuis 2007 ba léegi ñu ngi ciy dox mais vraiment euh, féetoo bërki démb rek ministre de la pêche mi ngi ciy wax euh, xamal nañu ne aussi vraiment marché bi li ci des ay réglage tuuti la mooy yemb na lépp yemb na réglage tuuti rek ci des incha allah bu démarré yaakaar naa kaw télé bi nii kenn dootu ci gis kenn loolu daal euh, bëggoon nañu aussi vraiment kilifa yi ñi nga xam te aussi ñuy suñuy kilifa fii ci dëkk bi muy la maire muy la préfet des su préfets commissaire central ñooy suñu kilifa njaboot gi seen njaboot la ñu xool nañ lañ ñu organiser vraiment ñu jàppale leen ji xam ne dëkk bi con eh, contexte bi nekk ci dëkk bi na métti na trop métti na fu foo ko tak rek wees ko eh, ñu ngi leen di ñaan rek eh, ñu ànd ceeg dal incha allah yàlla mën na ci def jàmm incha allah bu nekk yàlla. bu nu jaayee te dépasse yi wër na yàlla jigéen ñee ko yore suñu jaayul duñu dund fii mën naa la wax ay place yi place yoo xamante ñoo yor seen kër. te amuñu marché fenn benn place xam dañ la jaayee même xale yu góor yi ñu yar seen yaay amuñu benn marché buñ jaayee nan nu bàyyi ñu dëkk ci kaw trottoir yi ku ñu fekk ci kaw tali bi nag ñu jàppale yóbbu mais ñun bu koy boo dàqee nit ki da ngaa war am foo ko mais amuñu fenn foo xam ne ñoom danañ nu fa teg xëy rek buum nu ñoom yor seen dépasse ñoom ñun amuñu dépasse fii la ñu yaakaar dépasse. ñoom bis bu la ñu jaar fii ku ñu fi fekk nañ ko nu yóbbu ñun ñu bàyyi ñu ci trottoir bi ñu daw ndax lekk dong la ñuy daw dawuñu leneen. amuñu lenn amuñu fu ñu dëkk amuñu leneen lu ñu lekk dong la ñuy daw man de maa ngi leen door a gis tey man man man ñii man maa ngi leen door a gis tey te fii yàgg naa fi am naa xaw ma ñetti at xaw ma ñeenti at ngi leen door a gis mënu nag ñoom di dund ñun ñu ni dund dund nekk duñu sàcc duñu njaaloo ji fii la ñu am fii la ñuy jaay dan ni nag mais fii la ñuy jaayee waaw ah du benn bu dee kaaraange itam nan nu wutal fu gën a kaaraange bu nu wutaloon marché ñu fay dugg oto du fa daw kon kon ñaam kaaraange mais ñoom ñoo nu njëkk a xañ kaaraange ñoom ñu nu wutalul marché ku yare peuple war a war a war kaa wutal foo xamante ni mën na fa nekk di fa wut lu muy dundee ginnaaw wutu ko nag waruñoo bañ lii ndax ñoom ñoo nu war a wutal fu ñu nekk. loolu rek tey nag ñu ngi fii ci marché central bu cees fi nga xamante ni fii euh, dafa dañ ko doon désencombré tey ak si ki nga xam ne moom mooy sous préfet bu zone nord de Abdoul Sy tey nag dafa ñëw désencombré fii nga xam ne moom mooy marché centrale bi ci rue bi nga xamante ni fii la ñu nekk nee na nag fas yéene na ko euh, yaatal fa fi nga xamante ni moom mooy marché bi yëpp fépp foo xamante ni ni toog na ci kaw tali bi wala ci kaw trottoir bi fas na laa yéene yëkkatee ñoom nag ñu ngi ñaxtu nee nañu dañuy daan doole dañuy wut dépense li yóbbu yóbbu ci seen kër waaye tamit eh, li nga xamante ni noonu lañ leen yëkkatee tey rafetlu ñu ko dara ndax nee nañ joxuñu leen benn yoon sommation te préfet bi nee na sommé na leen ci lu bëree bëri tey nag eh, mu ñëw nag jox eh, dëgg ma li nga xamante ni moom mooy liggéey bi fas yéene cee wéy fii nga xamante ba fi nga xamante ni fi la marché bi di setee wala di yaatoo mu ngi averti képp koo xamante ni nag nekk nga ci kaw trottoir wala ci kaw tali bi pour nga jog balaa muy ñëw nee na fas yéene naa jóg yi ngir setal li nga xam ne mooy marché bi xamante ni moom mooy mbas mi nekk ci réew mi mu ngi ñaax tamit askan bi ngir ñi nga xamante ni respecté wu ñu li nga xam ne moom mooy port de masque bi ñu respecté ko ngir nga xam ngir ñu daan li nga xamante ni moom mooy corona bi fas yéene ko fee jëlee di leen jox dig daje ba beneen incha allah